démb ñu ngoon Pikine tey ñu ngi fi nga xam ne mooy Guédiawaye cité enseignant marché jeudi ko ñu Lac de Guiers 2 muy waaj def open press sam tey ngir lan waajal le samedi le 13 digganteem ak kii nga xam ne ni moo di Boy Niang ci arène nationale taala dañuy dugg ci biir léegi waaye boo defee nii sa góos yaa ngi seen ron mu taxaw ak liiru jaan ron bëgg naa la waaw fay naa la ku baax ci loo ne mbaa yaa ngi am jàmm waaye sant yàlla baax su ma leen gisee nii ngeen taxaw daa mel ni seen xel dal na de. gisoo li ma sol nii. balan da nga sol. kon jeex na. waaw kon jeex na boo gisee balan bi rek mooy jeex na. ça veut dire que kon dara daal yéen a ngi. non déglu la ñun pare nañ lu muy wax Babacar. combat la boo xam ni bañ jëree bëre ba léegi. bañ jëree bëre ba léegi. coow lañ des ci combat bu ñu ko des ci combat. maa la wax loolu tax loolu. waaw parce que combat ñu toll la parce que boobu daal dafa doxal mu duggoon géej waaye maam nu mu fa demee bëgg na xoolal di géej waaye doon fii lay jaar doon fi dugg incha allah rabi mu pare fii. mais ak Cheikh Ndiaye dem jël naa ko mu ne da nga ñëw di ko nuyu te combat bi jege na jarul nga koy nuyu mais nee moom du koy xeex ak yooyu da ngeen doon xeex wala. Babacar su ma soobee du ma ci wax xam lu mooy problème bi ñun dañoo formé CNG jox ñu ay diplôme pour ñu nekk entraîneur ñun war nañ ba dama def su ci biir làmb ji alors balaa suñu mbër bi la ñu doon nuyonte xam la fair play loolu laa doon indi dañu ñëw xam nga waa ji wax ak moom ma ne ko ana Cheikh sama doomu ndey la ñëw ne ko doomu ndey loo wax parce loolu dafa rafet dima bi mais fi ñu koy teg du foofu ay non jaru ko na rafet rek quoi dama la que ñun ay ay responsable lañ kon am loo xam ne jaru ko na rafet dama doon bëgg mu rafet rek mais comme moom gisee na ko am problème. liiru loo wax. waaw sant yàlla rek yàlla suturaal ñu rek samedi le 13. yàlla may ndam lu sedd guy yàlla may ñu ndam dañ ko soxla képp kuy géejeway doomu géejeway deretu géejeway daw sa yaram bëgg naa nga jóg nga soutenir la de guerre ci bisam bi le ah le 13 ay le 13 du yom Babacar Thank you. ko yàlla trappul la trappul ko trappul ko wala jëkko wala jëkko jëkko wala bando wala sako wala saka jëkko awli bi awli ba awli ba tabax ko bari ma de bala waa ndeysaan mu ngoongu moom Omar Sakho alias Balla Gaye 2 dugg na ca biir nit ña mu ngeen koy seen ak la famille ba tey Balla ak la ma loolu de waaw waaw bu day ñëw ci doomu ndeyam Lac de Guiers 2 nga mbooloo ko topp ak da geera ngongu wala looloo lay wan ne yaay dafa fort ci doom. Babacar yaakaaroon ne xeex a indi. non du ci ñàkk combat bi faaw xeex am ci. fital yaakaar nga ko. non bu ñu fitalul jaar bunt buntu du ubbeeku ma dul. nga sama micro. moo ko du àndu caaxaan. olof ne na ànd bu yàgg bi dëgg la. Youssou Ndour wayoon ne ànd bu yàgg bi dëgg la. moo sage ah. moog Mbaye Dieye dëgg la dëgg la. Diouf dañuy jéem rek. soose nee na jatoo mu ko ñaamoo ñimme. loolu moo detti lan. waaye gaynde du bukkul buum. ci loone yaa ngi am jàmm. maa ngi tey ñu gis nga ñëw teew. waaw teewaay bi lu ko. suñu cër ci moom la ñuy joxe Lac de Guiers ku ko xam xam ñu ak moom ci commencement ba. war rek lañuy ñuy def géej waay yëpp génn nañu topp ci ginnaawam ba pare mu ànd ak yéene yéene bi nag yàlla na ko yàlla suñu borom mottali waaw. waa ji nee na kopp fondem la yor mu ngi leen di tibbal boobu ba tey te nee na bàyyeekul tibbalaate bi. waa ñun moom ay nitu làmb lañu. ay doomu champion ku lu fanil la sa papa nekk champion d' Afrique lu ne uh-huh. doomam nekk def lu ne uh-huh. pour ñun lii lamb rek la uh-huh. ñu ngi ñaanal yàlla laata guerre yàlla na ko yàlla may ndam. wala day ñëw day ñëw samedi day ñëw samedi esaat. Ah, Lac de Guiers 2 fu mu nekk maa ngi fa. démb gis nañu ama seen kenn ñëw ànd ak Boy Niang. Lac fu mu nekk ñu ngi fa maag Lac de Guiers ñoo duggandoo ci làmb 2005 la dugg. 2005 laa dugg moom mu dugg 2005. mais tey da ngaa léttu. non léttu ma de. loo def nii. <laughs> jëlandu ko ana Pape kii moom ku ko xam-xam ne maanaam man nga ne moo nekk biir géej way pion bi koy doxal. fédérateur voilà yaa ngoogu ma dun Pape Mama bëgg nañ la. waaw ñoo leen bëggee bu baax ñoo am nga jàmm. alhamdulilah sant yàlla. Pape Mama ku ko tudd géej way xel xalaat ne mooy fédéré mooy dajale mooy defar tey ñëpp génn. loolu ban taxawaay ngeen am ba loolu mën a am. taxawaay rek boo xam ne dañuy dem stade le treize incha ñaan yàlla may ñu ndam incha ah, ah. waaw. mën naa yomb. ah mun naa yomb ñu ñëw nañ am ndam rek bu ñu ko amee baax nañ am ndam rek. ndam rek mais Boy Niang daal da ngeen di koy génne géej waay bi yoon. non incha allah ci référendum boobu muy tàngal. dina këpp si kawam. dina këpp si kawam. boo xam ne du dara joxe gaas incha allah. dootul joxe gaas. dootul joxe gaas dina këpp si kawam dina këpp si kawam xam nga loolu. ndeysaan. li may daj doo ko daj li may daj doo ko daj laa wax nii foog nga entraîné waaw yow dama koy dóor bu daanu booy bi xam nga lan la dën ce kirkir cekkin dën ce kirkir cekkin ñu ne nii busaa bu ne nii gi da mbax bin rakin gi da mbax bin rakin gi da mbax bin rakin ñu ne taas ma taas 15 tas matas giz ra kije kid rat kije kid jabra brat ta chambak kijen chepa chepa chekid chepa chepa chekid giz giz giz giz giz rajagid rat kid pachekid ragil ñu ni la dëgër fa mu nekk dafay def lu baax ki giz fa mu nekk dafay def lu baax Babacar maa lay fay di sant yàlla julli jënd sant sama ñaari waajur nuyu sama sëriñ si asik borom digal nuyu waa États-Unis gi yëpp nag. Abdou Medina gambe di wax ne Gambey léegi maa ngi fexe yu di wax ne maa ngi fexe yóbbu kaar quoi comme que mënu ma woon yóbbu kalandoo waaw loolu la. mais may dóor yow lan man dama di mbër. non ba yow damaa xam ne yow comme yaag taala yéen ànd fu ne di am excivilité fu di ko amee nu moo tax man la xaar nga jël benn coup bu ko defee boo ñëwaat boo ñëwaat di nga xam loolu la tubaab naan il faut sauter euh, sauter reculer meilleur déwén noonu nga defal boo ñëwaat di nga ko teg ci yoon. li neex waay. Uh-huh. waay guy gee ngi. gisoon ndam ndam ndam buy xeeñ. nu na lay ñëwee cin bu naree xeeñ xaw ma baax neex xaw ma. waa ji nee na mbanam la yor te yéen ñëpp la tangal fonde ta day tàng. li nga gis fii lool loolu day na xel kontaan nañu. fu Balla Gaye nekk Sa Thiès nekk fo Guy gi nekk fa Elton nekk fa Lac de Guiers nekk fa Fils de Balla Pambaay Mbaytin sunu booy yëpp dajaloo nekk suñu ginnaaw loolu xel ki arrêtera Boy Niang ak Guédiawaye ki arrêtera ñi ngi ñaan mu nekk ci Lac de Guiers Boy Niang champion la boo la moom du tax ma wax lu mu ko wax nit ku baax la mais dañ koy ñaan yàlla mu yem fi Lac de Guiers ko def ko lu ko mbër mus ta def parce que ñun ñëpp tuddante doom war na am suñu diggante ne mais nag kàddu rafet mais dañuy ñaan yàlla Lac de Guiers fere ko mais Boy Niang wala bëreeg Lac de Guiers xas pourquoi ça muy sama morom mbër mais na ko yàlla ah giri giri gi lay wër dégg naa. kala Madoune Diouf ne Gris Bordeaux lay wër. non Gris Bordeaux moom qui demande la parole chaque jour la télé le tout le monde moi j'ai parlé Gris Bordeaux moom Serigne Kinte Guy gi wax na ko. ana rek rek. non kooku moom boo ma bëggee non non coupé la. waaw naa ne nga doo jël avance rek rek ndax daa bari gàll. non du man ak moom. man du ma bu ma waree bëreeg moom dinaa bëreeg moom jël bëri naa mbër mu yóbbu ko États-Unis entraîné moom dem ak moom diine def ci moom lu ne ma daan ko. man mbër la. non loolu loolu mi ngi suñu ginnaaw mais na bàyyi li muy wax man dama ko wax amoon mais li mu def ma ko faawati. lu mu wax xam nga non jël ma di ma dëkk comme même protocole nit ma nit laa mais ñëw xam nga xamoon dama am plan A B C D bokkul ci A B C D kon ñëwagul. fu mu bokk non mi ngi ci plan A B C D E ci E. ci E mi ngi ci E est-ce que rëg-rëg a ngi ci ah. mais rëg-rëg rëg-rëg mbapat kenn weranteetu ko man dama mbapat kenn weranteetu ko man dama def làmb frappe def ci ay preuve moom defagul li ma fi def bëregul ñi ma bëreel. veut dire waxal. kon wax sama palmarès du wax sama palmarès. bu doon xaalis moom moo ma boole moom damay toog la xaalis yox tàll mais samay supporters su ma ko jëlee duñ dem stade duñ dem stade nañ du combat nga mel ni ku ko xeeb mu lakk sa daal boo bëreeg man ren di nga bëreeg moom sóoraale naa ko mi ngi mais ñëwagul bu ñëwee rek incha allah ñu ko coupe de d' di nuyu sama grand mangaan Dubaay ak Ali Mané coupe d' bi di ko ñaan yàlla ñu ndam li Sadio Ma kii la eh, waaw waaj dañuy déggul français ma ne ko kàddu lu bari vraiment manger quatre-vingt-dix Sénégal ça suivre chaque jour depuis qu'à Napoli mais ça derrière trois chaque jour Sénégal tout le monde derrière pour Koulibaly derrière pour Kalidou Koulibaly que ça match contre Bénin y a de mat yaa ndam ñëw incha allah gëdd waaw. du nuyu bépp mbëru géej waaye bu teew ci bés bi. yaa ngi dégg mbër yi fi teew yëpp. mais que dama jaasi kaw géej waay baax a baax. sant waa géej waay baax a baax. sant képp koo xamante ne su jógee biir géej waay. jógee fu mu mënti doon ah. ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax. la da ngeen tey ñu ñëw fekk la fii fekk fi doomu géej waay yëpp tey mbëru géej waay yëpp jënd. def mobilisation bu mag di wane ni mbooloo mooy doole ngir combat capital bi nga am sa diggante Boy Niang 2. waaw mais nii la. dañ ne mbooloo moom mooy doole parce que tey ñun amuñu lu dul géejuwaay tey bu ñu amee combat bu mel ni kon donc waa géejuwaay tey dañ ci sant yàlla baax a baax ñu ngi koy waaj nag bu baax a baax daal. waaw lan la gër lan la gër ñu gis ni Boy Niang Boy Niang ci biir waxam dafa yor soo fondé tànqal waa géejuwaay yëpp yow des ak Balla Gaye de loolu la ci xalaat. tey day mujjee tànqalaate fondé. nga ne tey lay. tey lay mujjee tànqalaate fonde. tey lay mujjee tànqalaate. ndax combat bi dina gaaw wala dana yéex. ci moom lay dépendre. ndax waaye la dëgër tey géej waaye dañ laa sas. Balla Gaye numéro 2 ñëpp a génn Sa Thiès Boy Niang 2 Lirou Diane Alioune Seye numéro 2 mbaru géej waaye yëpp Elton Gueye gi. waaw mais normal. kon donc ñoom ñëpp bu ñu xamee seen xarit seen doom ndey am na combat. ñoom ñëpp dañ ci ñëw taxaw bu baax a baax démb ni démb nit ko laajee woon Boy la bëri xale la ak mag am ku diriger Boy loolu la ñuy wax waaw bés bi dañuy xam kuy diriger ci kàttanu yàlla Lac de Guiers Boy Niang nee na maam moom dañ ko laaj ndax am na looy moytu ci Lac de Guiers mu ne moom amul lenn lu muy moytu ci yow maanaam combat bi moom arbitre soufflé na boor bi soufflé rek mooy dal na sa kaw jëlee ndax combat day gaaw lu muy moytu ci man na fexe bu lu mu na ko dëggal rek dinañ xam bés ba ku muy ku muy moytu. lu ci mën rab dinañ ko def waaw. sa loxo bu la jox favori. non ko ma jox favori. waaw. dinañ wax ne boo ñu def mën bëri bàyyi leen yooyu boo yaa mënu bëri. boo ñaa li ñuy def dañ ne arbitre dana am pip mu arrière ba ca saako ya di xaar nga si ko. waaw sama dernier mot lenn la man aw ma dul géejuwaay ah maa ngi wax Aziz Ndiaye moom moo ne géejuwaay moom moo ko ñor bés di woo sama papa Baye Ala Ndiaye Masata sama mag sama lépp di woo Alioune Sall monsieur le maire Alioune Sall koy woo ci ñu ko bés bésam la ñu ngi woo autorité yëpp nekk Guédiawaye ah Lat Diop Néné Tall maire Aïda Sow Diawara bu Kasali Mame Boye sama xarit sama ndijaay sama lépp Mame Boye Diaw Néné Tall waaw bu Kasali ñu ngi woo ñëpp daal bàyyiwuñu kenn ci bés bi ñu teew ci xam nga Malick Gakou suñu ndijaay xam nga ñu ngi koy woo ci combat di woo waa Fouta surtout waa Fouta waa Fuuta waa Njum képp koo xamante ne yaa ngi fuut ñaanal ma xam la di woo ki nga xamante ne moom mooy kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ah, kilifa diine yëpp ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm di woo waa Waalo ci combat bi tamit a ah. yaa ngi dégg waa Tiwaawoon waa Tiwaawoon xalifa bi ñu ngi woo ñëpp ñu kenn shérif yi nag maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn shérif yëpp maa ngi leen di sàkku ñaan ci bés bi xam di woo ñi nga xamante ne tey bu dëkk bi yëngoo ak yéen waay bés bi seen bés. wasalaam merci beaucoup.